di leen balu xaq te di leen balu xaq di leen ñaanal jàmm waaye itam di sàkku ci ngeen ñaanal nu ko di ñaanit borom bi tabaraka wa taala mu defal nu tawfiq bool nit defal ndimbal di dikkaat ak yéen ci xadis bis bi di xadis léew mi comme ni nu ko baaxoo di ànd ak yéen bis jot seen mbokk Cheikh Mbay Seck di ko ànd ak yéen an abi hurayrata radiallahu anhu أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا رواه البخاري أبو هريرة يلا يلا دولي قرم نينا أب أعرابي مي أب أعراب moo dikkal yonent صلى الله عليه وسلم رب arab من xam ne mu dikk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama wax ko ne ko fa qaal dullani ala amalin tegtal ma ci jëf ida amiltuhu daxaltu janna yoo xam ne su ma ko jëfee danaa dugg aljana qaal yonent bi sallallahu alayhi wa sallama wax ko ne ko taabudullaha la tusriku bihi shay'a yonent bi ne ko jaamul yàlla te bul bokkaaleeg moom dara te loola mooy gëm yàlla seede amul benn buur bu yàlla bañ ko bokkaale lenn te mooy ponk ba njëkk ci lislaam ne ko itam wa tuqimu salaata al maktuba te ngay taxawal itam julli ya nga xam ne mooy julli farata yañ waral ci yow wa tu addi zakaata al mafruda te ngay joxe itam azaka ya nga xam ne itam luñ farataal la ci yow وتصوم رمضان ويارو كوري تم نغا كوي عمل نغاي وور ويارو كور با بي صلى الله عليه وسلم واخا لولو ربي دا فا والذي نفسي بيده جنا تي كيغا خامن سما بكان ميغي تي لا ازيد على هذا دوما دولي تي لي nga xam ne arab boobu ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj ko wax ko loolee ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ko lii ba noppi dafa giñ ci yàlla mi nga xam ne bakkanam mi ngi ci loo xam ne lii ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax du ci dolli dara falamma walla ba nga xamee ne dudd na a nabi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ne man sarrahu koo xam ne dana ko sopp dana bëgg an yandura ila rajulin min ahlil janna ci mu xool ci waa joo xam ne bokk na ci waa aljana fal yandur ila hada na xool ci kii koo xam ne daal dana ko yéem te dana ko bëgg mu xool waa joo xam ne bokk na ci waa aljana na xool waa ji ngir ne li nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal na ko ko su ca nekkee sax ca Eh, di ko jëf comme nam ko ko diggale dafay tabbi aljana kon digle yi nga xam ne mooy gëm yàlla bañ ko bokkaaleeg dara taxawal julli juróom joxe azaka woor weeru koor ja xam ne moom la ko digal mu wax ne moom du ca dolli dara noonee mu ko waxe su ca taxawee noonee rek dafay tabbi aljana yàlla ñu yàlla defal tawfiq defal ndimbal te saxloo ñu itam ci yi nga xam ne ponk lislaam la yooyu ñu war a mën a taxawee ni ko borom bi subhaanahu wa taala digle yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal na ko ñu jàngal nañu ko noonu ñu di ko defee noonee ndax dana sabab kët dana waral sunu tabbi aljana suñ ca taxawee noonee in uridu al islam mastata ma tawfiq illa billah wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh